nee na kon mi ngi fàttali ñëpp ndigal li nga xam ne moom lay bëgg joxe ndax jàkka ji bi nga xamee ne Cheikh Saliou Mbacké naaloon na ko ca pàkk bu njëkk ba ba yàlla def barab bi ñëw bi mu barab bi yaatu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké agsi dugal ci institut islamique recherche di Cheikh Ahmadou Bamba ak salle de conférence boo xam ne war naa mat ñetti junni place ak juróomi téeméer moo nekkoon ci plan bi xam ngeen ne biñ koy tàmbali noonu lañ ko waxee woon ba yàlla def jotuñ koo tàmbali tegoon xeer wi ak Cheikh Sidou Moukhtar ñëw ñu tàmbali liggéey bi ba liggéey bi sori ba doon bëgg a tàmbali sax salle de conférence bi ak institut bi Cheikh Sidou Moukhtar wax ne nañ fexe ba jël liggéey bépp jëmee ko ci jumaa ji ba mu àgg lu ci dolli ko door ci dolli ko kon loolu moo doon ndigal la ndigal nag bu agsee ci taalibe bi waratoo ci am xalaat waratoo ci am bëgg-bëgg moo tax fa sens rek lañ ko daal di jël ne ko tegg fi suuf amatuñ ci benn xalaat ba yàlla def a Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké Diop moom it yàlla na ko fi yàlla yàggal ba mu agsee dégg ngeen la mu njëkk wax sama yitte jëpp maa ngi ko jëme ci daara Cheikhul Khadim ci mooy université ba muy tabaxal Serigne Touba ca Touba kon Serigne Touba ku ne ak lam la liggéeyloo ndax naan la fi waxam ne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moo ko tàmbali woon Serigne Saliou ñëw àggale ko ba ñu ubbi woon ko bi Cheikh Mouhamadou Mountakha ñëwee nag ne sama yitte yëpp ak sama xalaat yëpp mooy daare Cheikhul Khadim ji laa fa séenoo sumb ba mu àgg liggéey bi nag ñëpp xam nañ ne ñaga kon ni mu ko soññee woon ci màggal gi rek. na ko ñëpp xame noonu li fi liggéey bi àggul rek na ko taalib yi xam ne lépp seen jëfa ko war a def nit ñi nag la Serigne Saliou Mbacké daa wax rek joxe bi dafa jiitu laaj bi kon seen yitte ak seen pësef ak seen bëgg Serigne Touba kenn nattab ko ndax liggéey Serigne Touba kat dañoo jaay suñ jëmmu jaay suñu alal ngir jënd ko ngërëmu Serigne Touba muy la suñ borom waxoon ci alxuraan ci diggam ak saxaaba yi اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه كون نك كو سوك جيبول تي ياكار سيرن توبا داغا خانا سا ليب سيرن توبا كو كون ورو ньо دنتال دار الك غير خامني دنتال الك كات لا فا گن موي القران سانتاني هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم kon loolu mooy jihaad ci sa alal ak sa jëmm kon nag xam ngeen ne jihaad ci jihaad ci sa bakkan amatut kon li ci des mooy jihaad ci sa kon nañ xam ne alal ji jëriñu dara lu weesu terloo ak suturloo li ci ëpp solo nag mooy la ngay denc ëllëg ndax loo fa loo fa faggoot bu doo ko fekk kon la sëriñ boo xoon rek doomu aadama ñaari biir rek ko saq biru jemam ji ak biir bàmmeelam mu ne biirub jëmmam ji bu muy itteem ndax yàlla mi ko sak moo ko warul la fa def la fay jëm wa min dabbatin fil ardi illa ala llahi risquha mu ne biir bàmmeel ak nay itteem ndax lu mu fa jëf du ko fekk kon nag li ñuy jëf ngir sëñ Tuubaa di ci yaakaar ak payam ëllëg lola mooy li solo ci ñun kon sëriñ bi nee mi ngi ci joxewaat ndigal kon sëriñ Mbàkke na nga ko daal tàmbalee ngir xam bu sëriñ bi jàppee dat bi waxtu moo xam nag na koy jàppe dana ñëwal boppam ñu woote ko mu teg xeer wi taalib bi yëpp sóobu ci ànd ko moom waaye ci diggante bi nag kon ab taalib bi moom du xaar da ngeen ko daal di tàmbalee waajo lu ci waay man nga tàmbali ko ngeen xam ne liggéey bi dafa yaatu ba ca di mooy liggéey boo xam ne wërta taxaw ndax jumaa ji xam ngeen ne li ko tax wax bari na kon moo gën a jafe fuuf entretien bi waaye entretien bi yombut ndax xam nga ni jumaa ju toll nii li ko war entretien lu ci yàqu ñu defaraat ko lamp yi lakk ñu soppi ko ak facture courant yi jumaay Tuubaa ji ak kër Sëriñ Tuubaa yi rek Cheikh Mouhamadou Mountakha ñaari weer yu ne mi ngi ci fay 40 millions fi mu toll nii kon xam ngeen ne loolu du liggéey bu tuuti fii nag yéen ñi dëkk Dakar yéen a ko war a def kon ci biir loolu xam ngeen ne li fi war bari na kon taalibe yi nañ ci gën a góorgóorlu tàmbulaat di ci jëf bu ci daa jëf ba liggéey bi ak si fii na nga daal di tobbaat saw sas loo ci defoon benn nga yokk ko ngir xam ne li fi war bari na te sëriñ bi joxe na ndigal muy imaam ak ñi topp ci moom ñu defaral leen ay kër ci fu jege barab bi ngir seenu nekkin ci barab bi mën a yemb loolu lépp nag sëriñ bi moom joxe ndigal la war a def waaye kon yéen taalibe yi nag ñun taalibe yi sax nañ xam ne lépp suñu wartee fa ndax kenn defalut Sëriñ Tuubaa lu ko gën a lii kon nag buñ jógee ci jataay bi rek na ko ñëpp tàmbalee waajal lu ci waay man loo man ak loo mënu nga def ko ci ngeen xam ne loo ci def rek dañ ca dajeeg payu yàlla dañ ca dajeeg ngërëmu suñ Tuubaa te wa ridwaanu minallaahi akbar zalika huwa alfawsul azim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu